souvent euh, dañ koy daal di jànkonteel ak tamit seen i rapatriement gis ngeen fan yi am na sénégalais yu bari yoo xamante ni dañ leen a si file ci réew mi euh, position Union européenne jëm ci wàllum crise migratoire migration clandestine bi nga xamante ni euh, ba léegi mi ngi daal di wéy di am ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile di suñu invité di Boubacar Seye ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. fay aussi di nuyu waa mi FM yëpp. Mm-hmm. Euh, di nuyu waa Sénégal nit ñuy déglu ñëpp di nuyu aussi ñu nekk euh, bitim réew. Mm-hmm. Mm-hmm. waa doo doo wax bu baax wala ndekkee go <laughs> non attends attends je rapprocher du, du d'accord nga jógee micro bi voilà ok c'est bon euh, léegi Boubacar Seye comment se porte Horizon sans sans frontières mi ngi dox wala doxul Horizon sans frontières bon ci ban côté par exemple Horizon sans frontières euh, nous on est là le combat continue. ba léegi yéen a maintenant mu ngi dox ci ban côté peut-être euh, am na lu ñu manqué amaguñ ko. mooy maintenant hmm. bon orison sans frontières euh, mu ngi dox ci liggéey bi parce que dans sa mission de veille et d'alerte. Mm -hmm. maintenant pour avoir les moyens yi ñu soxla réellement pour liggéey bi gën a yomb loolu mosu fee am. maanaam expliquer ñu xam. waaw mais horizon sans frontière. depuis depuis bi mu sàmpoo ba léegi di dal di ci média yi. mais réellement lan ngeen gën a soxla. pour euh, attends attends parce que quand vous dites que dañ fi nekk di critiquer. Hmm. no moi je ne critique au contraire je donne des solutions par rapport. à des problématiques. ah Boubacar da ngay critiquer nag yow tamit waaw mais tu peux l'appeler comme tu veux. parce que critique euh, la damay wax. sànni xeer. non damay wax man xaw ma ces notions la man du ma du ma sànni xeer je ne connais Euh, damay jouer euh, en tant que immigré mm-hmm. en tant que organisation et en tant que chercheur sur cette thématique la donc damay diagnostiquer mm-hmm. li xew et j'amène euh, teg des solutions mm-hmm. donc li xew li am dans la gestion des flux migratoires il y a des failles bis bu nekk failles génn euh, ce plateau bi je crois que def naa ko plus de dix fois du noonu mhm. et toujours on diagnostique les véritables problèmes les mêmes problèmes euh, di teg ay solution mais taxul mbir maa ngi fi ba léegi yenn solution donc je ne peux pas quand vous dites critiquer je ne peux pas. ah mais mais loolu mooy. waaw d'accord Boubacar yow tamit dañ lay xoolee comme activiste rek. waaw non moi je. wala xoolee woo sa bopp activiste. non moi je wax naa la ma nekk ak la may dox. ak li ma fi indi. maintenant libre à chacun de de. mais kon li ngay def du critique kon lan la. déggoo li ma la wax. nguur gi def nga ne lim def baaxul. waaw mais su ko defee woon nii lay gën a baax. indi say solution teg mais justement loolu laa wax. mais si si si si logique boobu la ne euh, bon ok y' a pas da ngay attaquer da ngay critiquer. non je je dis ce qui ne va pas parce que xam nga c'est un dossier qui pose des problématiques euh, de dignité humaine ay doomu aadama ñoo nekk ci ay souffrances euh, kon man mënuma tàcc lu dul dëgg. Mhm. wax nga ko barki démb. Euh, plus de quarante sept euh, sénégalais. Mhm. bloqué wu depuis trois mois di ñaan dimbal kenn jàppalewu leen mhm. ñu sonn nekk situation yi difficile bërki dem la ñu egg ci Sénégal à eux-mêmes mhm. sans aucune assistance spécifique ñu waroon nañ leen téye euh, li ñu waroon njëkk def une assistance psychologique parce que sonn nañu loolu amul xam nga donc kon je ne peux pas applaudir cela maintenant libra à chacun ak ku nekk nu mu ko gisee la may wax du mën a neex état bi fi nekk. Mhm. parce que sur ce dossier migratoire la su amoon li ci war. man du ma ñëw fi Horizon Sans Frontières di fi ñëw c'est parce que nous avons pris nos responsabilités en tant que immigrés euh, pour relancer le débat sur une meilleure gestion pour une meilleure gestion des flux migratoires ci àddina bi voilà loolu moo fi indi Horizon Sans Frontières en 2013 du dëgg lii la ñuy dox et par rapport à tel comme ni nga ko appelé critique wala dara lu ci mënti am rek on donne une solution léegi donc chaque fois qu'on diagnostique mhm. on donne une solution je crois que suñu déglu woon ci yenn problématique yi xëy na am na loo xam ni du fi am maintenant c'est un dossier politisé li ci nekk yëpp dafa bëri et ah, vous conviendrez avec moi parce que Boubacar yaa commencé di dugg tamit ci politique bi yow tamit bon je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez politique dama wax. ni le fait ngay ngay ngay approché euh, Bougane Gueye Dany. boo xam dafa am ay ambition présidentielle. waaw xam nga xam nga peut-être tamit mën na gàkkal sa sa li li ngay def. waaw xëy na da nga xamul mais rapport avec Bougane da nga xamul aussi euh, la genèse de Gëm sa bopp. ah bon euh, voilà c'est ko ah, xamoon doomu wax loolu parce que mais Bougane politicien la tamit non non on peut l'appeler comme on veut j'ai pas de problème il sur, a des sur... ambitions politiques waaw ouais, mais bien sûr dafa war a am parce que c'est un citoyen c'est un citoyen non léegi ko approché kon dossier bi suñ ko politiser waroo ko kaas parce que yaa ko cuub non le dossier migratoire est un fait social oui d'accord c'est mhm. différent euh, quand je suis fii au Sénégal mhm. depuis 2013 j'ai parlé de gëm sa bopp pour une relecture des perspectives mhm. gëm sa bopp pour une révolution socioculturelle gëm sa bopp pour ñu xam suñu bopp gëm sa bopp pour xale yi mën a toog xam ni l'avenir c'est ici kon tey Bougane su ma woowee ñu xool nan la ñuy mën a tegee loo xam ni tey euh, dina ñu ànd tabax Sénégal euh, xale yi gën a xam seen bopp. Mhm. Sénégal yi gën xam seen bopp donc euh, euh, cette idéologie là. Mhm. Euh, dama lay wax ni kon Euh, dafa ànd ak la may dox. Mhm. moo tax je je suis boo xamoon gëm sa bopp di nga xam ne je suis membre fondateur de gëm sa bopp. est-ce que loolu tamit du la yàqal parce que yaa ngi def combat bu noble. boo xam ne raxul woon politique bokkoo ci. mais combat bu noble euh, ça dépend dem dem ba à un moment donné nga commencé approcher Bougane Gueye Dany qui a des ambitions yoo xam ñëpp xam nañ ko est-ce que loolu dama ne du du du gàkkal. li nga xamante ni moom nga doon def. Boubacar Seye est citoyen sénégalais. oui dëgg la. waaw donc man en tant que citoyen sénégalais war naa mën. Mhm. xam nga euh, war naa mën a euh, impliqué wu dans le processus. politique même de ce pays là loolu laa foofu sax laay wax mm. duma wax sax la ren waxuma sax socio-économique dama ni euh, impliqué wu parce que xale yaa ngi dee ci géej gi mhm. la y a l'extrême pauvreté là le chômage endémique donc tey je crois que euh, par rapport à tout ce que nous nous avons eu à comme proposition dans ce dossier la tey euh, ñu samp gëm sa bopp. Mhm. Euh, woo ma pour une alliance stratégique. Mhm. jox ñu ci cër jox ñu ci diaspora bi. pour ñu ànd liggéey Sénégal euh, moi je vois ça comme une reconnaissance sociale maintenant su fekkee loolu moo may indil problème kon samay problème du mus a jeex parce que dama la wax ni man kon léegi yow Boubacar yow léegi politicien nga non comme vous l'appelez léegi politicien nga damaa non man léegi dugg naa ci euh, ci ci ci ci arène politique. voilà ça ça ça ça ça ça ça dépendra de. ci ci ci local yaa ngi ñëw présidentiel yaa ngi ñëw. <laughs> est-ce que doo assumer sa statut d'homme politique. waaw <laughs> mais ça c'est bu fekkee. comme que yaa ngi bugg d'accord naa damay wax ni. Euh, euh, je fais de la politique sociale politique de développement lay def. Mm-hmm. xam nga xam nga ma lan moo ma ñor. ak lu ma fi indi l'Afrique. le Sénégal. Mhm. maintenant nag bu fekkee loolu li may def nii politique la jàppal ni kon bëgg naa bokk ci politiciens yi seulement man sama politique bokkul ak politique u saaga politique u ŋàññ donc c' est c' est une force de proposition alors euh, je m' li am ci Sénégal gis nga dëkk bi nu mu mel et man waratuma mën a noppi. maintenant qu'à lan ne tienne su dee loolu mooy politique jàppal ni d' naa ni bis ni ki tey politicien bu mag laax. Boubacar Seye ban euh, leçon euh, la tiré. Mhm. ci. Euh, sa emprisonnement après dinañ ñëwaat sax li tax li la yóbbu kaso mais euh, sa emprisonnement ban leçon nga ci tiire lan la la jàngal si àdduna comme ni mu gaawee noonu def nga benn kii wax ci média yi xam nga ñu pamti pamtee la jàpp la dugal la ci kaso bi lan nga euh, tiré ci emprisonnement boobu waaw vous savez ce que j'ai le plus tiré comme leçon mhm. man Boubacar Seye lépp lu ma defoon tey ci lu baax war naa gën a góorgóorlu man loolu laa njëkk jàng parce que euh, dañ ma téye. Mhm. Euh, ñëpp jóg Sénégal jóg yéen presse bi ngeen jóg j'en profite pour remercier la presse parce que bi ma ne tëpp aéroport ñu téye ma am na ñu arrêté seeni direct sax mhm. Mhm. jël ma addina bi jóg Europe jóg mais je ne pouvais pas imaginer Boubacar Seye international voilà moi je je pouvais je pouvais pas susciter cette euh, cet engouement ñëpp jóg Euh, ba tax na euh, quinze jours laa tëdd prison euh, ñu ngi ma téye le le quatorze le quinze laa fi egsi ci guddi gi trois jours yi ma def en garde à vue quinze jours laa def ci prison bi le trois ñu fee génn ma am na lu ma ci yàlla buggoon noonu donc tey jii juste pour diir que man ci ñu war a gën a góor góorlu pour que Sénégal am changement pour que Afrique changé man mi ci laa bokk donc boobu jàngat laa ci am baneen bi waaw xam nga mënoon nañ ma téye kenn du wax Euh, jusqu'à présent ba démb euh, mm-hmm. c'est des journalistes hollandais euh, c'est des journalistes néerlandais waaw mm-hmm. c'est ça hollandais c'est ça mm-hmm. ñoo may woo parce que dañ ma defaloon fii benn interview sujet bi nekk foofu débat seen dëkk mënuma la wax le nombre de journalistes européens que je mm. reçois mm. euh, Figaro mm. tant tant tant tant tant sur euh, l'emprisonnement de Boubacar Sèye parce que je n'ai fait que mon devoir xale yaa ngi dee mm-hmm. euh, dans ma mission d'alerte de veille mm-hmm. dans ma mission académique parce que damay yëngu dans la recherche sur cette thématique la mm-hmm. ma ni kat li ñu fiy dugal te xale yaa ngi dee tey kat pour ñu évoluer dans les perspectives de solution il faut qu'on fasse le bilan pour mën a dem ñu ne ma ñu téye ma jaay ma doole donc loolu tey mu indi lii euh, euh, comme ni ma ko kenn waxee passage la bu ma waroon jaar ma ci sant yàlla parce que jàng naa ci lu bëri aussi mais taxul parce que su doon arrêté la may def keroog bi ma génnee laay laay laay daw ñibbiwaat Europe maa ngi fii ci dëkk bi. Mhm. ci dëkk bi laa bokk. Euh, seulement nag am na loo xam ni xëy na man dootuma ko d' accord man mhm. Boubacar Seye n' ne pas un voyou qu'on en prison euh, pour le torturer. Mhm. voilà dañ la torturer ci biir kaso bi. waaw mais prison toroxal la. <coughs> prison rek déjà troxal la j'ai jamais imaginé dans ma vie parce que dafuma gis nga horizon sans frontières amul caaxaan. Mm-hmm. moo tax gisoo quand tout à vous avez parlé ma ni la dafa am lu ñu soxla. les moyens gis nga euh, ku bëgg a liggéeyal horizon ku bëgg liggéey man sax état du Sénégal daf lay wax tout sauf Boubacar Seye parce que suñu noonu la. Mm-hmm. alors euh, soo leen liggéey ñoom ñu jël sax seen seen seen seen euh, yi ñuy def yi ñuy jox organisation yi su ñu ñëw installé wu seen seen autorisation yi ñuy joxe je sais pas le nom dina ñëw léegi. Mm-hmm. donc juste pour dire que man bi may ñu foogoon ñun ñun dañuy jàppale te waxuñu lu dul nañu yërëm doomu aadama yi nañu yërëm doomu sénégalais yi dekk bitim réew euh, nañu xoolaat immigration parce que moo yore àddina suñ ko organisé Sénégal def ci génn mais quand je tenais ce ce langage là xalaatu woon ni euh, dinañ egg fii ba fi ñu ma njëkk a tëjee loolu moo metti les dirigeants européens. Mm-hmm. loolu moo metti du moins l'union européenne. parce que voilà mm-hmm. euh, Afrique moom a tëj ci rek kuy laaj xaalis. yàlla daf aussi ma bëri beaucoup de casquettes dans la migration euh, moo tax euh, le dossier actuellement est en cours au Parlement européen parce que na nag dootuñu d'accord euh, nit tëb di laaj xaalis boo xam ni c'est l'argent du contribuable man mi c'est l'argent du contribuable européen man mi sax sama xaalis a ngi ci man ni waa xaalis boobu fu ko dugal parce que moom la ñuy financer les les les projets de développement en en Afrique euh, pour lutter contre l'extrême pauvreté donc xaalis boobu laa laaj fu mu ko dugal ñu jaay ma doole. Mm. dans un pays africain et j'ai même honte que aujourd'hui on peint le Sénégal comme un pays dictateur Boubacar Sèye arrêté par un dictateur africain. Mm. loolu du sama ndam man. loolu mm. du parce que fii laa fii laa bokk man. kon ñuy dem bay traité le Sénégal de dictat pays dictat voilà parce que euh, ñu ngi jaay doole des citoyens loolu laa nii euh, daf war a jeex kon sama jàngal prison tey euh, beneen kii la ma joxaat boo xam ni man bokk naa mhm. bokk naa ci war a xeex pour que Afrique dem moo tax euh, si vous me dites je suis un homme politique dama si sax kontaan peut-être je ne ferai pas la politique comme les autres man du ma saaga nag du ma ŋaañ kenn te du ma yéene kenn mu échouer parce que kenn bëggul échec par contre en ce qui concerne ce pays là euh, jàppal ni man maa ngi ci biir te képp ku ma woo ci koo xam ni euh, liggéey Sénégal la surtout man ci fànn woo ma nekk képp ku ma woo pour une alliance stratégique mm-hmm. sur des questions migratoires parce que yeneen dañ koy def du ko bañal Sénégal le Maroc m'a toujours consa contrat am na benn année Union européenne moo yónni Madagascar délégation lañ def ñëw seet si ma euh, pour seen dossier migratoire kon loolu mënu ma ko bañal fi ma dëkk ça serait même euh, nit mënu ko mënu ko nangu man fii laa dëkk sëy laa sant ci dëkk bi laa dëkk euh, dama ni nañu yërëm nit ñi nañu yërëm xale yi parce que sonn nañu nañu yërëm doomu aadama yi gis nga sax taw bi lim fi def donc lii laa wax c'est le langage que Boubacar Seye a toujours tenu est-ce que gisoo musoo maa dégg mhm. ma saaga nit musoo maa dégg ma wax loo xam ni waruma ko wax je mesure mes propos donc lii laa wax loolu nag kenn mënuma cee jëlee est-ce que nekkuñu woon dañu la bëggoon euh, xoqatal waaw xaaral ñu xool nu ñu tëjee làmmiñu Boubacar Seye non mais mais effectivement ku wàcc ku jóge ci njabootam wàcc aéroport mhm. euh, euh, ni leen ba pare man maa indi sama bopp Sénégal mhm. biñ ma woowee man maa maa leen sax woo d'ailleurs ah changé suma billet ñëw Sénégal parce que euh, au mois de janvier il y avait trop de neige à Madrid. Mm-hmm. ma changé ma vol dem ba Portugal j'ai pris Air Portugal ñëw Sénégal euh, <laughs> les documents ma jox. Mm-hmm. Euh, institution moo ma ko jox te jox na leen ko kooku nga jël ko donc ça veut dire que yaa ngi jaay doole et on ne peut concevoir ce genre de, de comportement. mais à un moment donné bi ñu la bi ñu la jàppee jours yi nga def prison est-ce que à un moment donné waxoo man su ma génnee vraiment je vais laisser tomber. je vais dama damay leneen. parce que j'ai fait trop de sacrifices. mais j'ai trop de mais je le fais pour moi-même la ma ko def loo xaw ma ko. Mhm. man xam nga j'ai fait li gënoon metti ci man prison bi xam nga suma njaboot sax moo gënoon metti. parce mhm. que Euh, papa a disparu. Hmm. loolu moo gënoon metti jusqu'à présent ma fille ne sait pas que man dama duggoon prison parce que su ko xamoon tey du d'accord ma toogati fii hmm. donc vous voyez suñuy doom yi dañuy dem sax ba ragal parce que l'Afrique lii la ñu donc peut loolu moo gënoon metti ci man mais dire que je vais parce que c'est des années de sacrifice Horizon sans frontières a été créé en man quand je venais ici en Afrique au Sénégal da doon métti samay doom parce que léegi ma fille elle a 15 ans. au moins elle a mm-hmm. compris mais avant de, de, de, elle pouvait pas comprendre pourquoi papa dafay dem. Mm-hmm. après bu ñëwaatee après su may dem c'est c'est kër gi day mel ni dëj moo fi am. Mm-hmm. mais loolu yàlla dimbali na ma xale yaa ngi màgg alors su ma doon dem bi ma génnee fii keroog ma feebar. ñu naan nañ ko yóbbu Europe j'ai refusé parce que euh, moi euh, voilà ma sécurité sociale Sénégal aw ma fi sécurité sociale mm-hmm. donc euh, euh, dañ ma entré ci benn clinique d'ailleurs même c'est Bougane bi ngay wax ni moom moo ko moom moo ko def j'en profite pour le remercier mm-hmm. parce que dama séex moom kóllëre gu rëy Bougane c'est mon ami c'est mon jeune frère noonu la demee donc kon boobu lay daw mais dafuma ko dama toog maa ngi sant yàlla maa ngi continuer xeex mais mais sant yàlla mais mais ci biir kaso bi maanaam dama ne à un moment donné est-ce que waxoo ni non est-ce que du ma xam nga su ma génnee est-ce que du ma dem c'est tout le contraire toog sama wetu famille c'est tout le contraire gis nga ci biir kaso bi mhm. euh, saa bu ma xëyee dama doon am loo xam ne sax j'en profite aussi pour remercier les gardes pénitentiaires ku ci xëy da ngay ñëw néeg ba ma nekk dama nuyu mhm. ñi nekk ci kaso bi sax dañuy ñëw di ma wax seeni problème pour bu ma eggee bu may génnee ma dimbali leen est-ce que vous comprenez ci biir kaso bi sax nit ñaa ngi may consulter ba man damay fàtte samay problème euh, j'en profite pour parler de quelqu'un mmh. bis bu nekk mu woo ma mmh. soo ma ko mayee il s'appelle euh, Serigne bu Diène mu ngi au Cap Manuel dañ ko téye foofu mmh. waaw dañ ko téye jiñ ko terrorisme te xam naa ni moom xamul dara am na ñu wax ni sax yaram mi neexul bis bu nekk mu woo je crois que maa ngi ciy interpellé keroog Seydou Gassama. Mhm. il faut que ñu xool. Euh, le problème de ces gens là et les longues détentions yi nekk ci prison bi. Mhm. beneen bi toute la prison est remplie de jeunes. de ay mhm. jeunes ñii dañoo demoon émigration clandestine ñii ñu jin lii ñu mais je crois que war nañu mën a xoolaat beneen forme de conversion pour cette jeunesse là parce que quand on emprisonne sa jeunesse y a un danger pour répondre à ta question euh, prison bi loolu laa fa jëlee donc li ma fa jëlee moom mooy ñaan yàlla génn ba ñooñu ñu jàppale leen dal na ma ci kon koo xam ni pavillon spécial euh, la ñu daje il a fait trois ans ci prison bi ñu jën ko terrorisme mm. mais dama ci nekk di wax di wax di wax ba dama dama yeewu subate rek mu woo ma ni ma génn na mu ngi kol mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi seen dëkk. Mm. ci dëkku Casamance yi mm. xaw ma booru xaw ma Medina xaw ma fan la ma waxoon du dëkk. donc yaa kaa yu demee noonu donc loolu laa fa jëlee génnaat. pour jàppale doomu aadama yi nga xam ne dañu nekk dans des difficultés mais en aucun moment tooguma xalaat parce que metti na parce que ñu ngi may toroxal ma génn daw sinon kon ñibbi naa je suis rentré en Europe depuis je mm-hmm. suis là dans ce pays alors euh, je vais m'impliquer davantage sur tous les plans nag. surtout foo xalaat. léegi sax dootoo yam ci wàllu migration bi di nga la migration c'est ma xam nga man les détenus. xam nga man micro mais waaw mais parce que c'est des waaw bien sûr ay doomu aadama lañ xam nga ñun tout ce qui man. Euh, lépp loo xam ni injustice la euh, violation des droits humains dignité humaine loolu laa wax mm. mais la migration euh, mooy sama domaine de prédilection man dama bàyyi suma sama lépp. Euh, daf sama àddina lii. lii lii lii sama lii des sama àddina ci lii laa ko bëgg a dox migration parce que moo yore àddina c' est l'un des éléments essentiels de la géopolitique mondiale. voilà si loolu laa la bëggoon laaj sax importance migration ci àdduna bi. mais moo yore addina donc. Euh, si si naka. ci ci contexte bi ñu nekk. nous sommes dans un contexte mondial. Mmh. de mobilité croissante des populations. am na ñu wax ni chaque année plus de un milliard de personnes franchissent une boo xoolee. lépp ci migration yi la nekk. Mm-hmm. Euh, gisoo feebar bi sax bi mu commencé. Mm-hmm. nous avons été les premier à alerte mm-hmm. boo xoolee man maa njëkk a wax ci àddina bi fii. pandémie parce que euh, pour des raisons géopolitiques géoéconomiques l'union euh, l'organisation mondiale de la santé nangu ta wax dëgg nit ñi alors que toutes les conditions boo jëlee la thématique migration et pandémie puisque dama waxoon ni le principal vecteur de propagation c'est la migration du fait de la mobilité mm. les chinois sont un milliard cent éparpillés on parle de plus de quatre cent xawma mille mille en Afrique de l'Ouest xawma en Afrique mm. donc ñooñu tey soo jógul rek euh, jël ay matuwaay euh, y aura échappement viral mmh. après éclatement viral ci situation boobu la ñu nekk donc tey côté boobu génnaat na beneen thématique boo jëlaat sur la paix et sécurité gis nga contexte yi am tey euh, la relation causale et linéaire entre la migration et autres là boo jëlee développement gis nga euh, tey euh, immigré yi li ñuy dugal mm-hmm. dëkk bu mel ni Sénégal dama wax ni sax immigré yi ñoo ko yore parce que li ñu dugal nee nañu c'est supérieur à l'aide au développement donc immigration facteur de de de de de de recomposition des des influ des des des sphères d'influence la ci àddina bi facteur euh, euh, d'équilibre social économique la loolu moo tax mu yore àddina li li li li li li li li Galilée waxoon que les mathématiques sont l'alphabet de la nature man damay wax ni immigration tey moo yore àddina lépp immigration la moo tax suñ ko organiser si la jàmm nekk moo tax ñun ñu ne la paix la sécurité en vue d'un développement humain durable influe sur une meilleure gestion des flux migratoires aujourd'hui tey loolu moo yore moo tax Horizon sans frontières développe tey une nouvelle stratégie dans la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité donc concept boobu c'est un concept de Horizon sans frontières IPS immigration paix et sécurité loolu moo tax sax pour tey ñu wane jàmm ci àddina bi parce que euh, gisoo les foyers de tension le monde est, est généré par des, des, des, des crises qui sont mm. dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes, exogènes, qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques mondiales. Aujourd'hui, soo xoolee euh, le facteur le plus crisogène et le facteur identitaire, pouvant euh, opposer des des communautés, voire des peuples. donc il faut ñu xoolaat li am ci àddina bi c'est l'échec des politiques d'intégration nekkin bi le bien loolu moo indi problème bi lan moo am tey la pauvreté loolu moo indi tey xale yi di dee ci géej gi yooyu yëpp tey lañu ñu war a xoolaat loolu moo tax ñu tënk ce concept là immigration IPS e immigration sécurité pour jàmm àddina loolu moo tax même boo xoolee même nous avons même initié un prix pour wax jàmm mm-hmm. euh, euh, euh, xam nga tey xool ñetti ñetti mots yi tey ñoo yore àddina immigration paix ak sécurité prix Nobel rek da nga doon dégg de la paix moo tax nous nu avons initié le prix immigration paix et sécurité. loolu depuis depuis seen prix boobu. Bakar non euh, Serigne mu ngi tudd Cheikh Moutada Khadim Rasoul xam nga li tax ñu ñu ñu wane ko. c'est depuis quand ngeen ko initié. no Serigne Maam Mor bi mu ñu mayee tur bi. Mhm. Euh, mat na deux ans mais euh, amaguma la force qu'il faut. Mhm. ak doole bi pour relancer pour def le lancement en Afrique pour addina bi xam ko pour l'inscrire dans le calendrier international ba nga xam ni ni ñuy waxee prix Nobel de la paix. noonu la ñuy waxee prix IPS Cheikh Moutada Khadim Rassoul pour wane ni ñun Sénégal am nañu lépp c'est là le concept gëm sa bopp tamit dafay ñëw parce que ñun gëmuñu suñu bopp alors que nous avons tout euh, bu ma waxee Cheikh Ahmad Bamba wax naa tous les foyers religieux au Sénégal c'est ñoo ñu wone un islam de paix et de tolérance parce que j'ai parlé de crise identitaire des, des espaces de repli identitaire à travers le monde donc ñun loolu la ñu bëgg a wone à travers les enseignements de Cheikh Ahmad Bamba euh, bu ma waxee Cheikh Ahmad Bamba nag wax naa ñëpp pour que tey ñu xam ni l'islam kat ni ñu koy juger à travers le monde par des faits anthropologiques tey ni ñuy juger l'islam euh, par rapport à la tradition perse ndakate yoo l'islam de paix am na islam jàmm am na islam tolérance am na loolu nag nañ ko wëri Sénégal mais man bi ñu créé ce prix là du tubaab yi ñoo ma ciy may doole. Hmm. Afrique ñoo ma ci war a may doole parce que déjà hmm. euh, nous parlons de Cheikh Ahmad Bamba de Serigne Moutada. Mm. Serigne Moutada euh, à travers le le travail qu'il a ci àddina bi dans la diaspora mais mais mais mais mais su ma ci Afrique jàppalewul euh, j'ai j'ai j'ai invité les États africains. Mm. les États du monde ci àddina bi pour le lancement en Afrique ma yónnee Sénégal wax leen ko ñu dëgg seen tànk. loolu moo tax fan yële passé maa ngi doon def ay visite ci mu taxa pour expliquer ko. expliquer euh, ñoom ñu pour ma def le lancement officiel. pour lan nga soxla carrément. pour le lancement officiel mais un prix international il faut des moyens. lan nga soxla Boubacar Boubacar Seye n'a pas les moyens de ses ambitions un prix international dafa laaj du marketing dafa laaj doole. dafa laaj un bon comité scientifique ba nga xam ni euh, prix boobu su jotee ñu ne ah déwén kat le prix Cheikh Moutada kat. kii lañ koy jox mm. telle institution wala telle personne à travers le monde loolu nag dafa laaj liggéey ay des moyens mooy yooyu laa amul mais yàkkamtiwu ma maa ci déjà le prix est sur pied teg nañ ko ba pare dootul fa léegi waaw maa ngi ci woo ñëpp Bougane Gueye Dany non pas pas spécifiquement Bougane tout le monde j'appelle tout le monde. bëgg naa Bougane jàpp président Sall. non président Sall jàpp ci su si jàppoon dem nañu. parce que ma ne ma ne nga ne da nga lancé appel à tout le monde ma ne même le président. Macky Sall moom laa njëkk a yónnee lettre. waaw moom laa a yónnee non je je l'ai fait depuis deux ans. mais mm. dañ ko tànqamlu parce que c'est un prix que Boubacar Seye moomu ma ko. Serigne Mourtada Serigne Touba lañ ci sargal Serigne Mourtada la ñu delloo njukkam Euh, euh, l'islam la ñu delloo li surtout l'islam Sénégal Seydi Hadj Malick lañ delloo ñu ko maam limaam lañ delloo ñeneen ak ñeneen les foyers religieux pour que ñu xam ni kat addina bi comme ni ma ko waxee euh, ni ñu foogee islam comme étant parce que y a les migration l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique ñun loolu la ñuy di xeex mais loolu nga foog ni man tubaab bi dañ ma ciy jàppale au contraire dañ koy xeex Sénégal ma chef religieux yi lan la ñu wax par rapport ak côté boobu. waaw est-ce que pare nañ pour jàppale la. waaw j'ai j'ai j'ai est je suis allé waaw mais xam nga xam nga on ne peut pas ne pas adhérer. Mm-hmm. Euh, lu ñuy lu ñu tuddee euh, Serigne Mountada. Mm-hmm. Serigne Mountada. Mm-hmm. Euh, je crois que. Euh euh, euh, euh, tout le Sénégal devrait pouvoir je dirais même tout la oumma islamique mm donc dem naa ci xalif bi euh, ma expliqué ko projet bi dafa xatoon mhm. mais ma sëriñ sëriñ sëriñ Mourtada mhm. bu sëriñ Fàllu suma xarit la nit ku baax la j'en profite pour ñu ko mu may wax ni sax il faut ñu dellu siwaat pour gën a yaatal ci xarit parce que keroog bi ñuy dem Touba dañu xawoon a tardé parce que Serigne Habib mm, la ñu àndaloon sax mu gunge ñu dem nañ ci Serigne Abdou Karim expliquer ko léegi nag euh, dañuy delluwaat suñu paree nag ci laay delluwaatee ci Serigne Mamor. Mhm. Euh, ma defal ko le bilan de ce qui s'est passé on va aller faire aussi yeneen foyer religieux yi Euh, Tidiane euh, Niassène Layène pour gën leen expliquer le prix IPS immigration paix sécurité Cheikh Moutada Khadim Rasoul di ci woo ñëpp aussi maintenant su loolu passé nag ma demaat ci Serigne Mamor ñu def euh, comment on appelle une conférence de presse pour la cérémonie de lancement mais amaguñ ci doole bis bu ma ci am ñëpp nag yëgal nañ ko ñëpp mais mm. seulement comme ni ma ko waxee rek samp nit ku ñu la metti mm-hmm. alors soo dee samp am na ñu yàq am na ñuy gas am na ñuy suul am na ñoo xam sax dañu lay dëkkale foo xam ni mais du tax ñu arrêté dama wax ni euh, man sama sama àddina li ci des. Mm-hmm. je veux consacrer ça. Mm-hmm. à ce triptyque immigration paix sécurité. parce que moo yore. doo reculer benn yoon la lutte continue. mais je serai rentré kon bi ma génnee prison laa jël ci guddi gi sama avion dem maa ngi Sénégal ba léegi. voilà xeex. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen mission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, kile di Boubacar Seye nekk njiitu Horizon Sans Frontières di yëngatu ci wàllum euh, migration ci àdduna bi tey jii boo ñu doo boo doon ñëwaat plutôt sax ci jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi nekk bitim réew ñu ngi koy jànkonteel temps yi sax dafa mel ni seeni jafe-jafe dafa saafara wala en tout cas yëngu-yëngal bi bariwul noonu ci seen côté. mais saafara saafara lan mooy seeni i jafe-jafe. ba ba sénégalais yi nekk bitim réew euh, lenn rek la ñu soxla ku leen yëg jàppale leen. Mhm. contexte bi ñu nekk nii contexte Covid. Mhm. avec les récessions économiques avec yeneen problème yi am yëpp ci àddina bi dinañ ci delluwaat sur la responsabilité de l'Europe dans tout cela euh, ce dont les Sénégalais de l'extérieur ont plus besoin aujourd'hui euh, protection et assistance ci wàllu mu nekk pour mën gën dëkk convenablement mhm. et dignement dans les pays d'accueil mhm. foofu la amee des fay ñaata sénégalais ont été assassinés et les dossiers ñaata sénégalais aujourd'hui on maille à partir avec la justice des pays d'accueil le cas Mbaye Diop le cas ñeneen ñaata sénégalais la ñu la ñu la ñu kii bërki dem rek la suma benn xarit avocat maître Cheikh Dia Dabo di ma parler d'une femme qui a été égorgée en en en France ñu ne suicide la mbokk yi jaaxle ces dossiers la doo ko dégg ñaata sénégalais noo nekk tey en situation de détresse au large des côtes libyennes gis nga xale yi ñëw bërki démb sonn trop ah ba démb maa ngi jàkkook euh, le le porte-parole Modou Modou du caw Thiaw euh, gisuñu sax état à leur arrivée à l'aéroport te depuis trois mois ñuy laaj ndimbal ñaata sénégalais tey ñooy am problème pour renouveler seen seen seen seen carte seen i këyit mhm. parce que y a des lenteurs sur le plan administratif am na dëkk yoo xam ni amul consulat amul leneen donc yooyu yëpp c'est des failles et, et dans les perspectives de proposition nous nous avons demandé à ce que mu am une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions qui répondent aux enjeux géopolitiques géoéconomiques mais loolu foofu la failles yi nekk loolu amul mhm. nous avons en face de nous un dossier politisé mhm. parce que ñi ñuy jël généralement ils cherchent un gain politique ils ont leur clientèle politique boo bokkul fii dañ la fiy xeex boo xoolee c'est le casting même qu'il y a dans le choix des consuls et vice-consuls <laughs> pratiquement euh, les euh, les quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt euh, xaw ma lan pour cent sont sont politiques alors que tey daño waroon jël le diplomate de carrière comme consul pour éviter euh, qu'il se crête le chignon dans les trucs bien que mënoon nañu euh, profiter mënoon nañu valo mënoon nañ d'accord naa ci ñu def euh, des profils pluridisciplinaires parce que lépp a ngi ci maintenant loolu amul dans le choix des diplomates et autres là il y a un problème hmm. donc yooyu yëpp c'est des failles qui sont là tey Euh, nous parlons de Sénégalais de l'extérieur moi j'ai toujours dit ça le terme est caduc. Est caduc. Euh, même tey ère bi ñu nekk nii le Sénégal rentre dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures mais y aura un dumping migratoire Sénégal sénégalais yi sax mënatuñu am logement tey ñëppay ñëw y a un dumping migratoire mmh. donc nous avons demandé à ce qu'on mette sur pied euh, un ministère chargé des migrations internationales ou bien une agence autonome mm. parce que le ministère des Sénégalais de l'extérieur ça veut dire quoi ça veut dire absolument rien du tout qui est sénégalais de l'extérieur il faut parler de migration internationale de dans migration ce contexte là là ce, ministère va prendre la migration dans sa diversité sa complexité et sa transversalité loolu moo amul loolu moo amul bi ñu ba léegi ñu ngi koy wax donc il y a des failles d'ordre conjoncturel et structurel dans la gestion de de de de de de de ces flux là te tey Sénégal yokkute lay nekk ci moom je rappelle que mm-hmm. euh, vu la position géopolitique géostratégique du Sénégal 42 pour cent des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal attire par sa stabilité kon tey Sénégal su tegoon une bonne gouvernance en matière de migration yokkute lay nekk ci moom su organiser Euh, les les les les Sénégalais yi nekk bitim réew le Sénégal n'aura plus besoin de l'aide au développement qui n'a jamais servi aux ayants droit le Sénégal n'aura pas besoin ay ay fonds yu FMI joxe ay fonds yu Banque mondiale joxe il faut organiser doomu Sénégalais yi nekk bitim réew quand la Chine et l'Inde bi ñu ko defee gis nga ñooñu ñooñu ñooñuy wax pays émergent d'ailleurs ils ont un taux de croissance à deux chiffres alors au Sénégal dañu négliger yooyu yëpp dañu am lépp am jeunesse am ay doom yi nekk bitim réew euh, euh, euh, lu ñu am mu fanaan ci Sénégal ñu négliger leen loolu moo tax aujourd'hui euh, non seulement le dossier va à la traîne mais aussi le pays ne fonctionne pas parce que le Sénégal regorge de potentialités à l'extérieur ñooñu bëgg a jariñ dëkk bi bugg a liggéey mais ku ñëw ñu ñu siis la ku ñëw ñu xeex la ba ci mm. ba ci man mi ak ñeneen ak ñeneen nous sommes combien dans la diaspora qui veulent servir notre pays mm. mais soo ñëwee ah wala boog nga tàccu daf ñu ñoom li nga bëgg nga am ko mais su fekkee bëggoo dox ci yenn yi tu es l'ennemi à abattre je crois yooyu yëpp tey euh, dafa war a jeex mm-hmm. euh, ñu ñu ñu ñu ànd liggéey Sénégal euh, dama wax ni tey feebar bi dafa wane des fay Euh, le coronavirus je crois que war nañu mën a jàngat lu bëri ci coronavirus bi. Hmm. loolu moo tax dëkk bu mel ni Sénégal wala xooraat boppam. on aurait pu quand même euh, avancer la réflexion. Euh, pour un Sénégal post-coronavirus qu'est-ce qu'il faut. qu'est-ce qu'il faut mais xale yow xale yi bloqué woon euh, Agadez te yegg si démb euh, quel était euh, lan moo doon problème bi exactement. waaw ouais, mais c'est des c'est des candidats c'est des candidats à l'immigration clandestine ay xale ay xale yu jaaxle woon lañu. Mm-hmm. gis nga bërki démb xale bi wax na ko. Mm-hmm. su ñu toogee fii amuñu dara ñu dem ci marché di jaay ñu jàpp ñu dugal ñu ci prison on n'a plus d'espoir ñu yenu seeni bagages pour dem. Euh, ñii ñu ngi leen jàppee Algérie ñii ñu ngi leen jàppee euh, sur les côtes libyennes expulsé leen maintenant vers Agadez mm. ñu nekk fa depuis trois mois ci condition yi metti bëgg a ñibbisi bëgg a ñibbisi ñu tànkam leen mm. ci noonu lañ ma contacter ñu commencé di ci di ci di ci dox di ci dox di ci dox di dox mais est-ce que tamit blocage boobu ñoom amuñ ci part de responsabilité le fait ngay tukki yoroo kayit non attends attends amul kenn kuy tukki non xam nga lan mooy problème bi. waaw parce que yow euh, Boubacar. waaw booy tukki yaa ngi yor say papier. yor say kayit da ngay dem aéroport dugg sa avion wàcc. am say papier mais tout le monde n'a pas yu mais ñooñu xam nga xam nga débat bi mooy lan ñeneen ñi dañuy dem ñaan visa am séjour dem voilà là dinañ dugg sur les responsabilités mais est-ce que ñeneen tamit amuñ si responsabilité nous sommes tous responsables mais xam nga les candidats à l'immigration clandestine tout le monde nga li tax ñoom ils sont responsables mais vulnérables xam nga xam nga gis nga euh, l'extrême pauvreté les questions de la mauvaise gouvernance mm-hmm. les tares de la mauvaise mm-hmm. gouvernance mm-hmm. Euh, euh, euh, l'extrême pauvreté le chômage endémique chronique structurel ñooñu yooyu dafa dem ba dafa perforer c'est-à-dire que ça crée un ay doute ci boppu ñi nga xam ni c'est des esprits les plus vulnérables ba ñu yaakaar ni mënatuñu dekk fii loolu tamit erreur la le le le le doute à perforer notre environnement socioculturel au point que xale yi yaakaaratuñ ni mën nañ teg fii désespoir am désespoir nag moo la yóbbu ci lu nekk désespoir xam nga ku ñëw ba gis géej gi song ko bugg cee dugg nii da ngay dem Europe désespoir mënta passé loolu mm. xam nga yow mii doo ko def keneen du ko def mais les gens euh, dafa dañu dem ba nga xam ni euh, ba pare nag yokk ci dañu dem ba nga xam ni nit ñi yaakaaratuñ ni mën nañ fi tekki parce que ils sont désespérés les inégalités sociales yi am ci dëkk bi mhm. euh, les tares de la mauvaise gouvernance wax naa ko yooyu yëpp tey yokku ci nag nos pesanteurs socioculturels parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ni lépp am am am kenn boole mhm. socialement kenn boole ci dara mhm. euh, lu mu am ngay dégg euh, lu mu yore ba nga xam ni Euh, la nit ñi gëmatuñ ne sax que soo xoolee gis nga les questions de de yi fi am ci dëkk bi lekk xam nga anamu ñu ngi laaj xaalis bi ñu dugaloon ci ci ci mën bi mm. yi donc euh, nit ñi sax liggéey mooy jox nit xaalis dañu dem ba nga xam ni on a défroqué la relation linéaire bu doon am liggéey ak am am parce que soo taxawee xool léegi ñu ne waa ji koy moom kat bee parti la nekk ci pouvoir bi mm. te daaw fii la nekkoon di jël di jël clando donc yooyu yëpp tey mu nekk tey Euh, euh, une pathologie même dans un pays comme le Sénégal moo tax il faut que ñu dimbali xale yooyu. Mm. parce que euh, moo tax nous avons parlé mm-hmm. waaw nous avons de révolution socioculturelle nous avons parlé de relecture des mm. perspectives tey de révolution épistémologique pour que xale yi xam ni gëm ni seen avenir c'est ici loolu nag dafa laaj un travail mm-hmm. en amont et en aval Donc, mais mais Boubacar du poser benn question bi Afrique mm-hmm. déjà am nañu ndaw on a une population jeune. Mhm. Euh, am nañu espace. Mhm. inexploité. Mhm. yaakaar naa ne e-, espace inexploité bi am fii amul Europe. Euh, am nañu ay ressources dégg nga wax nga ko sànq Sénégal ñu ngi fiy wax pétrole gaz ainsi de suite mais ba léegi ñu ngi bëgg a génn dem qu'est-ce qu'il faut euh, carrément pour jeunes yooyu. toog bañatee dem mais toog fii parce que am nañu espace ay ndaw lañu en plus on a des ressources à exploiter. mais il faut faire de cette jeunesse la une priorité. comment. déglu leen xool li ñu bëgg nga jàppale leen ci parce que l'Afrique dafa jëlul euh, scénario bi nekk tey c'est l'Afrique qui tue ses enfants par l'immigration clandestine. Mhm. lan moo tax xale yi di dem laaj leen. mais quelle est la cause dans un pays comme le Sénégal c'est l'extrême pauvreté c'est les inégalités sociales xale yi amatuñu yaakaar il faut redonner l'espoir c'est ça le problème pauvreté boobu entre guillemets ci ressources yu ñu am espace bu ñu mais là là là là là il faut lépp lu pour développer. peut-être là il faudra des réponses politiques est-ce que nous avons les dirigeants d'envergure yu ñu hmm. parce que nous avons l'habitude de voir au en Afrique des gens qui une fois au pouvoir seen bopp lañ fi nekkal des gens qui là pour preuve les dirigeants africains. euh, placeront avec des patrimoines estimés à des milliards en euros et en dollars. Mm. dirigeants africains yi sañ les dirigeants européens yi yemuñu ko bokkuñu sax fuñu dëkk alors comprenez hmm. donc le problème c'est au niveau de de la mentalité africaine moo tax il faut la rupture gisoo actuellement Euh, gisoo comment cette jeunesse là euh, nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supérieur à 60 pour fi woon il y a dix ans donc gis nga seen exigence nous avons une jeunesse structurée dans leur méthode dañu dem ba nga xam ne jël nañu conscience que ni ñi yore dëkk bi dañ ko fowe la déggoo dëkk bi lañ ngay dégg dem leen dem leen dem leen dem leen dem leen dem leen euh, bindu ji mm-hmm. les les gens ont compris que maintenant c'est cette jeunesse là qui doit prendre mm. parce que les gens ont compris que dañu fowe dëkk bi mm. dañu fowe réew mi loolu nag ku ko waxul da ragal il faut avoir le courage de dire que mbir yi jaarul yoon su jaaroon yoon. yoon kon heure euh, bi war nañu dépasser. non attends xoolal Sénégal Dakar ban taw la fi taw ba ba les gens sont. Sénégal waroon nañ mën a dépasser lii. Mhm. tey jii boo duggee ci mbirum feebar bi mais les hôpitaux y a un problème de prise en charge. Mm Ah, ku fii Sénégal ku fi feebar dégg nga waroon nañu mën a fexe ba nit ñi di di di di di di di di faju suñu feebaree c'est le minimum mais soo feebaree dégg nga da ngay dem ba hôpital kenn du la jël ak yeneen nag yeneen yoo xam ne nañu d'accord ni euh, euh, suñu modèle de société bi fi nekk baaxul il faut tout reconstruire Euh, il faut déconstruire pour reconstruire mm-hmm. euh, ñu teg ko ci expertise ak justice sociale aujourd'hui il faudrait un beneen mo beneen contrat social beneen un autre euh, modèle de développement beneen contrat social qui puisse absorber toutes ces problématiques là surtout problématiques yi nga xam ni euh, ces problématiques liées à la jeunesse. À la jeunesse. parce que soo demee ba yeneen dëkk yi amuñu jeunesse. boo demee ba say ndaw désespéré. carrément bay désespéré mu jaral leen lii te bëgguñu mm. mais boo buggee wax ni xale yi amuñu jom wala bëgguñu ko leen jàppale da ngay wax lu la neex. mais mais nga président Sall li mu ci waxoon ku bëgg dem kenn mënu la téye. waaw mais faisons en sorte que parce que ñoom dañoo def seen bopp foog ñu dem waaw wax nañ leen li ci nekk mais ñu bëgg a dem moo tax soo dégloo soo dégloo li ma wax j'ai parlé de relecture de la perspective mm. relecture de la perspective avec des outils d'aide à la prise de décision fexe ba ñooñu ñu créer ce déclic là cette révolution socioculturelle pour ñu xam ni leur avenir c'est ici mm. donc c'est un travail qu'il faut faire en amont et en aval les états daf les familles ñu xoolaat seen bopp parce que aussi. Euh... mais mais est-ce que Boubacar dina yomb parce que jeune bi nga naan toogal fii euh, lépp am na fii Europe neexul crise bi métti na ainsi de suite euh, ñu gis la yow si sa bopp euh, boo feebaree waxuma yow quoi les, les je parle. Wow. des autorités étatiques ñu gis leen ni ñoom seen bopp ñoom ñu naan jeunes yi toog leen. Mm-hmm. suñu feebaree du ñu fi fajoo. du ñu fi fajoo c'est vrai. seeni doom bu ñu amee baccalauréat maximum du ñu fi jàngee. dëgg la bac ñuy yem après dem nañu extérieur. Mm. Euh, suñu jëlee vacances. Mm-hmm. ñu ngi. ñu ngi si dëkk tubaab yi mm-hmm. est-ce que kooku mën na toogaat encore si télé bi ministre boobu wala njiitu réew boobu. naan jeune bi. toogal lépp a ci réew mi Europe neexul. Euh, crise baa nga fa tubaab yee gën a sonn ainsi de suite muy toog. waaw absolument te mu gis la yow. foofu ngay vacances fa ngay fajoo fa ngay jàngee. même boo wàccee si nguur gi sax fa ngay dem. mais je suis d' accord xam nga kooku mënul wax benn jeune lu mu gëm. voilà mais moo tax tout à l'heure j'ai parlé de relecture des perspectives c' est un concept. parce que je pense que problème bi foofu la nekk. mais mais justement le problème est ce niveau là nañu fexe ba tey jii nii. Mhm. ku fi feebarati ci ñoom dootoo dem mais on les conditions mais mënoo fexe jël xaalisu réew mi soo feebaree daw. ñi fi nekk mënuñoo faju kooku soo ko waxee ni dafa war a toog fii du fi toog mm-hmm. mënoo fexe say doom dem di jàng à l'étranger Sénégal waroon na mën a dépasser foofu mm-hmm. gis nga en 2000 l'UNESCO avait dit que les flux étudiants daf ko estimé woon à 7 pour cent mm-hmm. euh, euh, euh, ce chiffre euh, ñu ngi exprimé à un million deux cent ce chiffre augmente chaque année de 7 pour mais tey la relation exclusive tey hein dans le domaine de l' enseignement supérieur euh, euh, bi France amoon mu ngi doon déterré wu au au en faveur du Sénégal avec la crise ivoirienne gis nga euh, moi j'ai été professeur à Abidjan. Mm. gis nga la plupart bi bi jeexee la plupart des écoles d' enseignement supérieur dañu migrer vers le Sénégal le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. Mm. moo tax ma ni la notre absence de vision dans ce dossier là daf ñu yàqal mais gis nga ñooñu suñ ko récupéré woon. ñu liggéey la la recherche. Mm-hmm. parce que dëkk recherche moo ko yore nous avons les gens qu'il faut nous avons d'éminents professeurs dans ce pays là. Mm-hmm. donc waratuñu mën a soxla. Euh, xale yi dem di jàngi en en en France ak ñeneen ça crée d'autres problématiques mm-hmm. ñun Sénégal lañu am nañu Sénégal parce que même ça pose problème parce que sànq wax nga ko euh, jeunes yi fii wala xale yi fi gën a xare ñu may leen bac bourse étrangère ñu dem mm. te souvent ñooñu. pratiquement du ñu mën a ñëwaat fii. dañuy des en Europe justement voilà donc donc c' est le problème moo tax j' insiste sur le mot relecture des perspectives. lépp ngi ci biir il faut une relecture des perspectives en Afrique. Mm. il faut une vision panafricaniste pour ñu mën il faut ñu gëm suñu bop il faut cette région socioculturelle épistémologique. épistémologie c'est important pour que ñun ñu xam ni kat l'avenir c'est c'est ici mais pourquoi aller chercher de euh, en Europe gis nga on enrichit la France gisoo France daaw bi mu amee un problème de budget. Mm-hmm. la France avait une dette de plus de neuf milliards euh, d'euros. donc mënatuñ sax fay leur engagement au niveau d'Europe moo tax il faut que ni ñu yeewu France mënul dimbali kenn. il faut mm-hmm. que les Africains yeewu. Mm-hmm. alors euh, dañu muus c'est-à-dire que ils ont mis en marche la diplomatie euh, économique euh, le Quai d'Orsay déclenché ça. euh, rapidement ils avaient besoin de 4,5 milliards d'euros donc gisoo am nay temps ambassade de France génn naan ñëw leen visa yaa ngi fi. Mhm. ngeen ñëw ñu lekk seen xaalis ngeen dem. donc Sénégal mënoon na xoolaat boppam. Mhm. organiser la migration. Euh, fexe ba nga xam ni Sénégal dafay nekk vu sa position géopolitique géostratégique Sénégal dafay nekk benn hub. au niveau de l' Afrique de l'Ouest voilà juste une minute temps bi jeex na euh, ci problème mu rapatriement des corps sénégalais yi souvent bu ñu faatoo bitim réew en Europe wala un peu quelque part dans le monde euh, famille yi dañuy am problème pour le rapatriement euh, des corps. waaw mais loolu lan moo ci solution. waaw mais lan mooy solution bi que man côté boobu ñun suñu ñu ñun suñu bopp laa ko teg ci diaspora bi. parce mm. que je crois que on ne peut pas toujours attendre l' te du ñu a jàppale. Mm. comme ni nga ko waxee nag ku am néew am problème. Mhm. mënuma la wax saa bu néew abee. Mhm. Euh, nit woo ma euh, lu ma ci mën rek daf communiquer. Mhm. souvent ñu jàpp ci souvent ñu bañ ci jàpp mais nous avons eu à de solidarité. voilà maanaam am entre la diaspora. am am am am solution. le non. fait que sénégalais bu faatoo. xam nga la solution am fonds boo xam la solution je l'ai dit en 2015. mu ngi ci kii bi dama ni nañu organiser wu ba ku nekk joxe un euro. un euro de laa wax xam nga un euro yomb na. Mm, mm. Euh, nous nous sommes combien dans la diaspora suñ ko dafee néew dootul traîner suñ ko dafee euh, kenn du fi génn ti àddina say doom tumuranke parce que ces gosses là il faut que nous ñun il faut ñuy dimbalante suñu biir maanaam un euro le migrant bi di laa wax de. par mois wala par année si année bi un euro rek. par année ñoo xam ni ko defee na ku nekk joxe un euro rek benn yoon rek. benn yoon. Mhm. néew dootu fi traîner un euro ça fait beaucoup d'argent. Mhm. Euh, pour les techniques euh, les frais de gestion administrative et technique de de rapatriement d'un corps maximum six la donc ñaanuñu yàlla am cinquante euh, cinquante néew par jour par par année. Mhm. est-ce que vous comprenez léegi loolu xaalis boobu mën na générer beaucoup de choses jàppale xale yi jàppale famille et mooy d'autres structures. tey war nañu mënoon am euh, notre banque war nañu mën a am une euh, benn société de transfert d' argent waroon ñu am les habitats sociaux yooyu yëpp mais ñu ñoo mën a jël en charge mais xam nga le problème de la diaspora dañoo déggoowul mm. la diaspora est un panier à crabe ñaata ñaata organisation diaspora ngay dégg ku nekk ñëw ni dangay ngay def kii. Mm. pour wax pour gëm loo ñu fi nekk ne ñun ñoo jiitu jaspora bi. Mm. ku nekk rek les gens se crêpent le ku nekk ngi njëkkante mais ça c' est pas il faut arrêter cette politisation de ce dossier là. nous nous parlons de la diaspora pour la diaspora ay doomu aadama yu nekk en difficulté ñu war leen tax ñu leen jàppale. Hmm. donc tey suñu déggoo woon yeneen yu fi am mais ñaata ñaata organisation de la diaspora ku nekk ni man la ku nekk man la su diaspora bi yëpp nekkoon benn ñu nangulante ñu xool kenn ñoom seen biir ñu fal ko. Euh, nga xam ni day am benn interlocuteur mais tey y' a interlocuteur état su buggee wax ku nekk taxaw ni moom la. donc loolu moo indi des failles dans la des problématiques aussi dans la gestion ak nu ñu mën a dimbalee les Sénégalais de l'extérieur. loolu problème voilà temps bi jeex na euh, di la laaj euh, migrants yi ak Covid 19 bi wala sénégalais de l'extérieur yi ak Covid 19 bi. waaw mais jàppale leen il faut les parce que tey xam nga y a des risques gis nga ce Covid 19 là. Mhm. Euh, dafa bëri des enjeux géopolitiques et géoéconomiques ça risque de prendre toute la décennie. deux mille vingt deux mille mm-hmm. te tey euh, tout à l'heure j'aurais aimé entrer dans les responsabilités européennes parce que tey dafa xew lu am Europe euh, la migration est devenue le contraire de l'identité parce que les dirigeants européens ont échoué pour la plupart dans une dans leur idéologie classique on surfe sur l'islam la migration mis au banc des accusés comme ni ma ko waxee par une laïcité juridico-politique gisoo le groupe de Visegrad ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ni dañu bañ ni duñu d'accord immigration léegi nag Euh, bu ñu demee ba ci kanam avec ces réseaux sociaux là c'est la théorie de remplacement mm. mooy prévaloir dans beaucoup de pays européens la théorie de remplacement mooy ñii dañoo ñëw pour jël li fi nekk migration nekkatul un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société mm. léegi dafay indi bundu xatal looloo tax nag les foyers de migration ñu ci bëri dinañu souffrir rawatina nag dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne ay doomam ñu ngi fu nekk loolu moo tax tey ñu wax ni il faudra revoir les politiques d'intégration parce que sans migration Sans intégration, on ne peut pas parler de migration. Et l'intégration devrait être ce processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Aujourd'hui, surtout l'intégration structurelle foofu dafa bëri ay failles mooy yaatal bi ñu war a yaatal euh, nit ñi. Mm-hmm. Euh, ci ci ci ci wàllu liggéey. ak wàllu dëkkuwaay foofu moo am des failles ba tax na suñu deful nang rek effectivement avec le Covid alors les lendemains mm. dina metti mm. pour les foyers de migration c'est là où j'en profite pour interpeller l'Europe parce que Europe a une grande part de responsabilité sur ces drames sur aussi ces politiques d'intégration parce que Europe dafa échouer dans dans dans sa dans la gestion de ces flux migratoires là parce que les amalgames sont là l'islam la migration et cetera yooyu yëpp il faut que ñu xoolaat ko ba nga xam ni tey les dirigeants européens dinañu mën a remettre en cause tey dans la gestion de ces flux migratoires dans un monde mondialisé aujourd'hui on devrait pouvoir euh, faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé foofu la amee faille foofu la amee échec ba tax na tey il faut que ñu xoolaat contexte bi gis nga les lois sur la migration pour la plupart euh, ñu ngi ko bindoon euh, le 10 décembre euh, 1948 la déclaration universelle des droits de l'homme mm. mais les, Nations Unies comptaient États aujourd'hui contexte bi ñu nekk la il faut des des lois beaucoup plus universelles mhm. voilà pour euh, Sénégal bokkul woon mhm. dëkk yu bari nekk ñu fa woon tey il faudrait des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables faille bi njëkk am wax nga ko ci tukki bi c'est l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui mhm. stipule sur le droit de sortie foofu la amee des failles ñu tëj visa yi tëj frontières yi l'Europe faaw tey jii dafa am le droit de sortie l'article treize mais amul benn corollaire logique qui devrait être l'article euh, le, le logique de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme moo c'est le droit à l'immigration qui n'existe pas il faut que ñu xoolaat mais discours boobu moi quand je tiens ce discours là en tant qu'africain dañ may xeex mm-hmm. parce que euh, euh, les Européens ont peur d'être détrônés Détrôné. culturellement et socialement par l'islam nañ loolu mooy problème bi c'est l'islam qui pose te mënuñu ko téye il faut ñu d'accord ni c'est le monde de la diversité aujourd'hui donc il faut ñu xam ni tey c'est le culte de la diversité moo mën a indi jàmm ci àddina bi foofu la fay nekk Boubacar ma bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi temps bi jeex na waaw xanaa di la remercier ci ci invitation bi alors euh, di ñaan aussi mbas mi mu yàlla teel ko fi jóge euh, di xo di ñaan aussi ñi nga xam ni ñoo yore Sénégal ñu xoolaat seen bopp dans la gestion de ce pays là parce que nous allons vers le chaos total euh, ñu yërëm xale yi. Mm. Euh, ces gosses qui sont venus avant euh, nekk nañ ci situation yu metti waroon nañ leen mën a accompagner sur le plan psychologique jàppale leen ak ñeneen ñi bëgg a ñëw ñu indi leen ak ñeneen ñi fi nekk bëgg a dem ñu fexe ba nu fi tee loolu nag lu koy indi mooy déglu nit ñi yërëm nit ñi. donc nañu yërëm doomu aadama yi sénégalais yi sonn nañu les gens ont des problèmes pour manger les des gens les gens ont des problèmes pour se soigner les gens ont des problèmes pour étudier je crois que loolu war na ko xoolaat. jërëjëf Boubacar euh, Seye ñu ngi koy remercier bu baax a baax surtout euh, ci disponibilité euh, mu nekk njiitu Horizon sans frontières di remercier yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi kon émission bi mën ngeen ko suivre suñu site internet. internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel Ndeye Comba Moreau kon di leen wax euh, samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.